alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi almustawjibi alhamdi xalaxa bani insaani wa sawaahum wa ala mawaidi karamihi wujudihi rabbaahum wabtalaahum bi taqallubi alaxwaal wa raddahum bayna alyusri walusri walghina walfaxri wa tabziri wa taxtiiri liyabluwuhum ayuhum axsanu amala wasalaatu wasalaamu ala mabuusi alhidayati wa rahma naashiri lxaqi wa naasiqi zulma munqizi lbashariyati min barafini lwayli walghumma allazi balaga risalata wa adda alamanata wa nasaxa alumma wa tarakaha ala mahajati albaydaa layluha kannahaariha la yazigu anha ila halikun wa ala alihi wa ashaabihi gurri almuhajjalin wa summi almubajjalin مشاهدي الأوفياء من تلفزتكم المفضلة تلفزيون فيتور ميديا نحييكم بتحية الإسلامية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu leen waaye itam ziar leen mbokk mi noonu ndokkeel leen bu baax a baax a baax ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ni mu am jàmm yàlla mi nga xam ni mu am sutura adduna am ko alaxira ñaan yàlla yàlla yàlla defal loolu waaye nag jaaree ko ci soppeem bi nga xam ni booy wax ak yàlla tuddoo ko yàlla ci boppam du la wuyu te mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn nañ ci koor gi ak jàmm yàlla na yàlla mayaat ñu fekke waat koor gi di ñëw kenn bañ a manqué lépp lu nu jaamu yàlla na yàlla nangul nu ko koor jeex na waaye jaamu yàlla xam nga du jeex yàlla nee na na nga ma jaamu ba ma malaaka bi di ñëw di jël sa ruu kon jaamu yàlla du wees julli du wees boo feebaree mën ngaa bañ a woor boo feebaree boo amul xaalis mën ngaa bañ a génne azaka boo amul alal mën nga ko bañ a génne waaye nag julli nga wér ak nga ñàkk wér foo toll du la wàcc mukk moom julli kon mbokk mi ngi noonu l'islam a mi ngi noonu l'islam baa ngoog mu dem l'islam baa ngoog mu jëm kanam waaye itam du deñ mukk di am ay noonam moom diine l'islam du tee yàlla waxoon na ko sidina Muhammad ne ko bu la dara naqari man yàlla doy naa la sëkk ci gaa ñi nga xam ni ñu ngi lay yëjji ñu ngi lay mokkee ñu ngi lay saboote waaye itam dana dem ba say gaa yi ñi nga xam ni ñoo fi ñoo fi wutu yëruntu yi ndax yëruntu bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni al ulamaau warathatul anbiyaa yi borom xam-xam yi ñoo fi wutu ñoo fi wutu yëruntu yi dem na ba mu yàgg sax borom xam-xam yooyu di waxtaane diine rawatina taxawee taxawu sayyidina Muhammad munul ñàkk ñu dem ba mu yàgg coow dikkal leen ñu dem ba mu yàgg am ñu taxaw pour euh, saboter l'islam jaare ko ca ñoom loolu nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla musal ñu ci yooyu yëpp ci daraja yëruntu bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg Seydina Muhammad yaakaar naa doo wax lu bon doo def lu bon doo xalaat lu bon sunu mbëggeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli fii ak yaa ngi toog ci jotaayam nag yaa gën tedd ku dul yow fii yaa ngi toog ci jotaayam yaa ëpp leer ku dul yow fii ak yaa ngi diglu ay waxtaanam yaa gën a baax te yaa gën a sell ku dul yow nuyu mboolem xalif généraux yi ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér nuyu njiitu réew mi waaye nuyu borom kër gi Seydi El Hadji Youssou Ndour ak mboolem sunu directeurs yi nekk télévision groupe Futurs Médias yëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraje Seydina Mouhamed xam nga nag sunu waxtaan yi wees ci biir koor gi Hadj Malick Dieng mi ma doon àndal ci biir koor gi xam nga nag dañoo defoon émission euh, waaye tàggoowul dernière émission yi nag tooy jàpp nu Euh, moo tax tàggoowul woon moo tax ma ne ko nag tey nomarel Haj Malick da nga ñëw nag euh, nit ñu doyalu ñu woon waaye tamit euh, yow itam mënu ñàkk nag nga tàggoo ak ñoom xam naa du du ma ni ba déwén waaye nag du mënu ñàkk émission siiré yi nag yenn saa yi nag nga ñëw wéttali wéttali wéttali ñu ndax ma Seydina Mouhamed yi nga xam ni dañu safoo télévision Futurs Médias mais nag bëgg sa njànginu alquran Haj Malick maa ngi lay nuyu maa ngi am mbégte lool di la ñaanal yal na yàlla barkeel la yal na yàlla gën a yokk xam-xam bi di la ñaanal yàlla bu la kenn ëppale ci Seydina a ah oustaz Ba maa ngi lay fay nuyoo di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu téléspectateur u TFM yëpp ñi ci biir ak yi ci biti réew yëpp di leen ziyaara ci àjjuma ji di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole jéggal di ñaan yàlla lépp lu luñ ko jaamu mu néew mu bari yàlla ko yàlla nangu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz comme ni nga ko waxee jaamu yàlla bu ñu naan koor moo dem waaye jaamu yàlla moom ci boppam du fi jug mukk ilaa yawmal qiyaamati xanaa di kontaan ci téléspectateurs yi bu baax comme ni ko waxee yàlla yàlla yokk wér yow yàlla yokk la barka ci daraja yonent bi fan yu mujj ci koor gi liggéey bi metti woon na lool ba nga xawoon na kii tuuti waaye alhamdulilah <laughs> yal na yàlla yokk wér gi tabaarakallahu yokk saafara bi bu baax a baax a baax ci daraja sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam saahibil mhm. mi ngi noonu ba ngoog mi ngi noonu siira ñaanati borom bi subhanahu wa taala yonentu boobu nga xam ni wax naa la ni la fii yaa ngi yërndu sa xool yëg ni moo fa ne moo fay fanaan mhm. yaa gën a tedd ku dul yow waaye itam ca mbaaxam nga ca jikkoom ju rafet ja yàlla wax ak moom ba mu yàgg ni ko waxalak ak sa gaa ni leen man yàlla day bu nu bëggee ma bëgg ci ñoom mooy nañu la roy yow rasulullahi xool naa la natt naa la ci biir natt naa la ci biti te da ngay jikko day bi mu tum rànkee yow rasulullah ñëw mottali ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin yàlla ni sayyidina Muhammad jikko day bi mu tumurankee yaa nekk ca kaw ca bopp ba ca kaw jikko yaa nekk ca tedd ngay jikko sa jikko rafet na waxu ko ni di way sa maam waxu ko ni yaa mel nangam ak nangam waaye yàlla def ne ko sayyidina Muhammad mamul mu ni ko naam mu ni ko tedd ngay jikko day euh, la ca gën a rafet lépp yaa ko jël njom baxtal la yaa ca toog yow rasulullah yi sallallahu Malik ca jikkoom ji rafet ja moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca xolam bu làpp ba moom sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci comprendre gi nga xam ne yonent bi alayhi salaam comprendre na ko àdduna waaye Xaaj Malik ku gëmoon yàlla moom rasulullah yi lépp lu ko mës a dëgmal dikkal ko moom sidina Muhammad te séntuwu ci yoolu borom bi subhanahu wa taala xam nga lu mu koy méngaloo mhm. day noppi maanaam rasulullah daawul mbóorontu mhm. xam nga mbóorontu mooy fo daaw ko def daawul mbóoruntu mu si jina Muhammad borom nañ lu amaani borom daal yi dafa wax ni mbóoruntu baaxul nanu bàyyi xel ni yàlla binduñu pour mbóoruntu laa dadda min nii wala ana min dadi na bee ko wax laa dadda deen mbóoruntu min nii dina ci man rasulullahi mm. te wana an wala ana min dadi mm-hmm. dégg nga dégg loolu naa ko su ma sa lakk arab rek saxaba yi daanu nag te kat gisuñu professeur bu ko jàngal bàyyi nga loolu gisuñu sëriñu daara bu ko jàngal bi mu bokkee arabul mustaariba giir yaarub ibnu qaatan al yamaniyun di arabul ariba nabi leen gën a digg arab parce que moom askan wi mu bokk mën naa ni wax mën naa la wax ni la du ñu arab pire. Mhm. parce que arab pire mooy koo xam ne bu ñu vérifier say maam mosu ñu mosoo am maam bu dul arab. Mhm. wala say sa ñeent fukki maam ak juróom maam boo mos a am arab la. Mhm. waaye giir gi mu bokk di giir Xurayshin mës na am maam boo xam ne du arab moom rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam waaye giir ya parce que ñoom mës mosu am maam boo xam ne du arab. seen maam yëpp arab la. waaye giir googu di arab pire. kii leen gën a dégg arab mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ab naa ay arab ibnu qaatan alyamaniyun humul arabul ariba wa minhum jurhum alxabilatu allati marat bi haajara ummi ismaila fa sakanat maaha fi ardi makkata ala saritati an la tusarikaha fi zamzama wa lamma kabira ismailu tazawaja bint sayidihim wa hiya asayida bintu midad ibni xaaris al akbari fastaaraba minhum wa lidalika fa xuraysun humul arabul mustaariba war sama sëriñ sëriñ Maodo ni salla an rasulillahi ummata yaarubin taajul udaba yi wa adibi ulama yi cheikhi wa <laughs> sayidi wa bayadu ayni suñu sëriñ suñu sëriñ sëriñ Moodu ni sallaajal mm-hmm. sallaajal mm-hmm. ummata yaarubin jiir yaarub ibnu qaatan alyamaniyun an rasulillahi kana sayidina muhammad laaj leen laaj leen rek mm-hmm. ñoom ñooy arabul ariba ñoom lañu wax ne ñooy arab piir ñooñu ñoom ñooy arabul ariba ki nga xam ni mi ngi génnee ci arabul mustaariba moo leen gën a dégg arab mais moom li ko jommaloon jaaxal ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ni mu gën a dégg arab yi ëpp ëpp ak dégg Hajji Malick ñi am dégg ñëpp mu gën leen a dégg moom rasulullah gi sallallahu alayhi wa a wax mu dàq leen wax moom rasulullah gi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam yëpp gisuñu wax naa la professeur ko jàngal mbaa sëriñu daara ba ko jàngal ba noppi mu jàngal univers bi jàngal alam bépp moom rasulullah gi mm-hmm. waaw léegi alquran ñëw xamloo ko mu ni wax ji ki wax wax jii ku mu doon moom rasulullah li ko jaaxal ñi am dégg moo leen gën a dégg ñi am éloquence mën a wax am fasaaxa moo leen ko dàqale ndax yonent Yàlla Saalix moo ko amoon éloquence la dañ ko éloquence am googu dañ ko nangu jox rasulullah wax naa la keroog bi mu juddoo Amina nee na kàddu ga ma dégg daf ne ma mboolem yonent yi ku ci ne la la yàlla joxoon nangu na ko jox na ko sama doom ji وروى خطيب البغدادي أن آمنة خالت لما ودعته عليه الصلاة والسلام رأيت سحابة عظيمة لها نور أسمع فيها سهل القيل وخف خان الأتنحية وكلام الرجال حتى غس يدعو وغيب عني فسمعت مناديا ينادي توفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأرض وأعرضه على كل روحاني من الجن wal insi wa tuyuuri wal waxuusi wa aatuhu xalqa aadama gis nga ba nga ñëw wa maarifata chefin wa sujaata nooxin wa qulata ibrahima wa fasahata saalihin wa xikmata luutin wa busra yanquba wa sirata moussa wa sabra ayuba wa taata yunusa wa jahada yushaa wa sawna daawuda wa waxaari ilyaasa wa xismata yaxya wa xubba daaniyaal wa zuhda isa alayhi salaam ci gàttal mboolem yonent yi ku ci nekk la la yàlla joxoon nangu na ko jox na ko sama doom ji rasulullah sallallahu alayhi amina wax ne maa ngi dégg kaddu gi dafa judd niir ma tiim ca biir niir wa ay fas yo cee ngexal ca biir niir wa a gi wax ak man kaddu gi lii la ma wax mhm. fasaara saalihin saalih dañ ko nangu jox rasulullah sallallahu alayhi alquran ñëw xamloo ko mhm. waaye xaaju malik mhm. moom yonentu boobu nag wax naa la ni la lépp luñ ko wax loo lu mu ci séntuwul yoonu borom bi subhanahu wa taala da koy méngaleeg noppi aku jëllal ba mu ca jëllal na moom bi wa sumtan wa safhan ayyama chamami la samam Cheikh Sidil Hadji Malick wax radiyallahu taala baradallahu isa moo wa Sidil Hadji Malick góor gu bëri xam-xam te am dégg waaw waaw fi xadiisi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sina Ali nee na wala yatakallamu illa fi ma yarju thawaabahu du wax mukk lu dul moom wax jamuy wax ma ngi cay séentu yooluk borom bi subhanahu wa taala te xoolal yar gi alaji malik xoolal sa waa ji ni mu yaroo kaay ma wax la ko ndax moom maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa bismillahi rahmani rahim والنجم إذا هوى أها. ما ضل صاحبكم وما غوى أها. وما ينطق عن الهوى دخلا إن هو إلا وحي يوحى أها. علمه شديد القوى بالله ذو مرة فاستوى wa huwa bil ufuqil a'la lu mu jege yàlla مدنا فتدلى فكان فكان قاب قوسين أو أدنى بالله فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بالله صدق الله العظيم صدق الله العظيم القرآن ngoog yàlla ngay waxtaan ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur daal ni ko Mamadou mu ni ko naam doo waxee sa bànneexu bakkan mukk loo wax maa ko wax mm-hmm. waaye loo waxul waxuma ko yow loo wax maa ko wax mm-hmm. loo waxul rek waxuma ko kon kilifa gu toll ni yàlla yàlla bi nga xam ne bindul mbindeef yi pour fo am na fu ko yàlla wax afa xasibtum afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به بالله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم القرآن ngoog yàlla ngay waxtaan ak rasulullah gi dégg nga buur daal yi yàlla ni ko waxal sa gaa ñi ni ndax dañu njort ni man yàlla dama am jot nii rek bind leen pour fo afa xasibtum da waxoon naa la léegi waxi borom daaliye borom nay du amaani dafa wax ni law kaana za lubbin la ay xana annahu maa kaana unshi'a batilan aw andadi nee na yow nit boo nekkoon di ko am xel di nga xam ne yàlla bindu la pour mbóorontu mbóorontu mooy fo dina fa laa jàddee woon ba indi rasulaay bu mësaan wax lakk arab saxaaba yi daanu ca la waxoon ni laa dadda min nii wala ana min dadi borom daalee ni law kaana za lubbin la xana annahu maa kaana unshia batilan aw an dadi aw an mooy mooy ñu nit ñi bu ñu nekkoon di ku am xel daa xam ne yàlla bindu leen pour mbóorontu mooy fo mooy foo pour mbóorontu waaye yàlla ni ko doo waxee sa bànneexu bakkan mukk pour toog ci jotaay bëgg lu neex nit ñi ngay sos waaye nga lu am na ñoo xam ne sos la ñu nekk ci àddina am na ñoo xam ni bis bu ne Hajj Malick ñu ngi bëgg nga am defet mbaa yëg nga loolu. am na ñoo ñoom sa defet rek lañ bëgg de waajal waaj ko nag te bàyyi ko xel. nga lu laabal sa xol bi lay tax yàlla dimbali la moo yéeneel ñëpp jàmm. yéeneel ñëpp jàmm xam nga nit ñi nit ñi kuñ bëgg a bëgg. kuñ naan ndeysaan ndeysaan. ku ñu yërëm lañ bëgg kay mm-hmm. ay waay ndeysaan moom day ndeysaan feebaram bi ay waay moom ndeysaan dafa ñàkk de moom day ndeysaan amul dépense bërki dem ay waay moom ndeysaan moom ndeysaan kuñ naan ndeysaan moom duñ la waxal dara kuñ naan ndeysaan duñ la waxal dara mais Hadj Malick fii ak yaa ngi yëg ci sa bopp xam sa bopp yàlla di la dimbali fii ak yaa ngi déglu dañ lay déstabiliser mm-hmm. moo tax àddina boo ci nekkee da ngay fit xam li nga bëgg laabal sa xol bi yéen ñëpp lu baax waaye jub gis nga jub nag jub doo trian doo dóor martu mën nañ laa tuumaal nag ne diw day dóor fekk yow néewoo ci loolu dëgg la lu dul lu leew doo ko dundee doo trian doo dóor martu di wax dëgg di jëf dëgg xam nga sidna Xadija lan la waxoon rasulullah bi ko yonent bi ne inni xasitu ala nafsi tiit naa ci sama bopp est li waa màkk di wax naan dinaa jomm est-ce du ma jommi nan ma xuntu mi ngay làqatu est-ce que jommi wa Xadija xadi lu xew xam nga lu ko xadi ji tontu daf ni ko mukk kallaa maa yuxzika llaahu yow yàlla du la gàcceel mukk mu ni ko ana ah, lu tax mu ni ko ndax innaka la tasiu rahima da ngay dox mbokk wa tasduq al xaqa da ngay wax dëgg wa tuinu ala nawaibi al xaqi da ngay dimbali ku nekk ci dëgg yow rasulullah gi na di am fit parce que booba waa Makka liñ koy wax ñu ngi ko bëgg a déstabiliser fekk am na lu mu yër du ba gis ko moom rasulullah gi booba nag yonent bi nag Hajj Malik boo boo ko bëggee di nga lewet ndax dafa lewetoon gën a mën a mu ñëpp moom yonent bi ëpp kersa ñëpp ëpp sécurité ñëpp waaye toogaayu ku tedd ka yàlla nag yëkkati na nag bu toogee nga fay nekk di wax wax ju bari laa tarfa'u aswaatakum يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أها ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بالله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم صدق الله ngoog yàlla ngay waxtaan ak Seydina Muhammad ma ngay wax ak saxaaba yaa àndoon moom nag yenn saa nga jege sa kilifa ci biir woyof gam woyof ak mbaaxam doo yëg kilifa nga toogal waaye yenn saa muy wax sa kàddu gën a jug yàlla ni xam ngeen lu xewa jox leen ko cër xam ngeen lu xewa xam leen ki ngeen toogal su waxatee bu leen yëkkati seen i kàddu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi xam ngeen lu xewa am na ñeneen ñuy wax ci kaw kàddoom bu leen bokk ca ñooña damay bañ seeni i bàkkaar seen i seen i yiw sippi ko te du ngeen ko yëg ah wahum wa antum la tashuruuna te damay bañ seeni yiw sippiku li ngeen jot a jaamu yàlla mbaax gi ngeen jot a def damay bañ mu sippiku te wa antum la tashuruuna te yëgu leen ni li ngeen defoon ci lu baax lépp dañ na te li leen ko yóbbee mooy ñàkk xam ki ngeen toogal ko mu doon waaw yàlla mi bind jaam ñi moom leen di wax nit ñi kooku kooku mooy kan waaw kii ndax nit ñi jar na bàyyi ko xel dam wala wala jarul bàyyi xel Hadj Malick jar na bàyyi xel ndax Rasulullaay mii jar na topp wala jarul topp waaw kii lii mu ñëwoon lépp ak li ko yàlla défendre lépp ak li yàlla wax ak nit ñi lépp ci moom waaw kii ndax jar na bàyyi xelam jaru ko ndax kii jar na topp jikkoomam jaru ko kii ndax jar na topp mbaaxam nga ak yiwam nga ak sellam nga ndax jar na ko jaru ko ah ah laa sana jar na comme jëru ko ah? dégg nga Haj Malik kon samaam ni xilmun wa sabrun nee na déenéer lu ga xumiya mu nia nee na déenéer loom nga moom rasulullahi lewetam nga ak mu ñëm nga kersaam gu bari ga nga xéeg xéeg déedéet mooy jànq sunu jànq yu njëkk yi rek laa wax moom sunu jànq léegi yi hmm. suñu ñànk yu njëkk ya nga xam ne daawuñu siggi xool nit mhm. yu njëkk ya mhm. ay léegi yi nag ah boo leen xool ñu xool la boo leen xool ñu xool dégg nga suñu jànk yu njëkk ya xam mooy xéeg mhm. nañu amee woon kersa Musaa leen ëpp kersa sallallahu alayhi wa sallam ak sécurité toogaayu ko tedd ka nag yëkkati kàddu sama am nee na tere nañ ko ci rasulullah waaye xoolal woyefam nga musul toog mukk ci tuddul yàlla moom rasulullah waaye musul jug te tuddul yàlla waaye bu dëkk ma lee mbooloo moom rasulullah yi fa mbooloo ma yem du jéggat leen diw may leen diw may mu ngi ñëw mi ngi ñëw muy jéggat nit ñi jikko la de sol ay dàll da toog di do daal bu ñuy jullee dàll bi nga ci suuf si xamoo ndax dëgg na sobe wala dëggul sobe nga koy doxee ci basan mbaa moket bi rasulullah yi woon noonu bu dëkk ma naan mbooloo fa mbooloo ma yem fa lay toog du jéggat moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du jéggat moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu dëkk malee mbooloo fa mbooloo ma yam fa lay toog waaye musul toog te tuddul yàlla musul jug taxaw te tuddul yàlla xaysun tëha majlisun kaanal juluusu juluusu lahu lam yajlisanna bi xayri zikri walam yaqumi waaw fas fa mbooloo ma yam fa lay toog waaye musul toog mukk te tuddul yàlla mm-hmm. waaye musul jug taxaw te tuddul yàlla moo tax yàlla ni ko yow day rasulullah sallallahu ma la santoon lépp mat na te kat mission bi 11 ans la parce que 52 ans la génn ma ko mm-hmm. bi jàllul mais 11 ans la nekk Médine rek la adduna waaye ci la ma la ko génnee Makka 52 ans 62 ans mu dugg Makka 10 ans après ñëw nangu Makka taxaw jabul rahma ajam gu barkeel googu waaye laa san indil ma ko waaye ci ajam gu barkeel googu fa ko yàlla fekk ni ko li ma la santoon lépp mat na jibril ñëw ni ko yàlla ngi lay nuyu waaye gi ne yàlla ngi lay nuyu sa waa ji rek kanaan dégg sallallahu alayhi wa sallam laata na yóbbu ma arafa yóbbu ma arafa ca montagne ba borom yu weexe yooyu yàlla ngi lay nuyu mhm. yàlla nee na aadama def la fi junni at lam nga santoon matul yun yàlla noox junni at yu fukk la dund matalul yun yàlla Moussa dund na cent vingt ans yun yàlla Ibrahima dund na cent quarante ans ci li ñenn li wax yun yàlla Souleymane nguur gi ko yàlla jox doo ko jox kenn ca jabal rahma nabi na hëhu naa wa hëhu naa fa la wax ki ne arafat kulluhu mawqifun alxaju arafa mi ngi noonu fa la yëg ca montagne ba fa la ko jibil fekk ne ko yàlla nee na mission bi maj na al yawma akmaltu lakum dinakum xurrimat alaykum almaytatu waddamu wa laxmu alxinziri wa ma uhilla li gayri llahi bih والمنخنقة والموقوذة والمتردة والدية والنطيحة أه. وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون بالله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم keroog la Bakar jooy keroog la Ousmane jaaxle Alioune sa ngéem Omar ne lu xew xanaa yéegu leen li yàlla wax xanaa déggu leen wax ji yàllaa ni Mamadou mu ne ko naam buur daa lay wax ak moom rasul mu ni ko naam coono bi nga daj lépp Hajj Malick dëkk boo juddoo Hajj Malick yaroo ci dëkk ba màggee ci dëkk ba waa dëkk ba génn la dëkk ba nga dem beneen dëkk boo musul dem beneen dëkk boo miinul wala gëj na fa ba ma amee 6 ans ànd ak ndeyam ja dëkk boobu di Madinatul Munawwara nabi dem fa xamul dëkk boobu xamul seen dund xamul seen aada xamul seen cosaan waaye génn nañ ko dëkk moom rasulullah yi 11 ans mu rek la adduna bi ci fitam bu rëy wa ca njàmbaar ga ca xam ki ko yónni ku mu doon waaye ca mbaaxam nga moo tax yàlla ne ko da nga baax <laughs> da nga baax il faut que nit ñi ñëw soo gaawoon a mer mbaa ngay fayantoo lu bon li ñu la def te kat ñu bon ñu ko doon def loolu di rey ay mbokkam di ko jëw ak faagaagal ñi mu àndal ak a génne ko ca dëkk ba bi mu del see màkk dafa leen a baal waaye kii moo baax waaye ah, idhabu fa antum tulaqa ah jox ma loxo wax naa dëgg wax naa dëgg parce que xaj Malik suñu waa ji moo baax rasulullah kenn du moom yàlla ne ko mat na kenn du lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina xaj man xool li fii la juddoo fii laa sana wan ma nii fii la juddoo moom rasulullah sallallahu su ndaw ay montagne wër ko ay montagne ko wër dëkk si fii la juddoo moom rasulullah sallallahu alayhi dafa l'islam di na buy julli l'islam bi dama dem ba nekk vingt na buy julli ñu dem ba nekk di laa koy julli Omar ñëw way nam xarajoo min baadi kawnihimi zujlan wa kaana shihabu diina zadarami waaw te booba wala yusalluuna illa fi shaabi wax yàlla ni ah, ah, sa maam ni isa mastada usrun fa yusrullahi fi amami mu ni isa mastada ndeem tar na ndeem tar na usrun jafeñ-jafeñ jafeñ-jafeñ bu taree mbambu yi dikkal la problème dikkal la mu ni fa yusrullah yombaluk yàlla fii amami mi ngi ci kanam waaye na mu muñee ca mbaa xam nga la bon yañ ko def waaye na mu muñee yàlla ko naa la yëkkati ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بالله ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim mi ngi noonu yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi buur daal di ne ko mu mu ne ko naa mu ne ko naa la yëkkati sa tur dina law jëm ci àdduna bi fii la juddoo mhm. dëkk su ndaw muy làqatuy julli convaincre deux milliards convaincre 2 milliards. samaam ni wa innahum ni ki saaba yooyee ànd ak Moustapha mu tedd ma xarajo génn nañu leen min baadi kawnihi mi ginnaaw seen nekk zuj lan 40 la zeyne 7 la jim 3 7 plus 3 10 lama ramassé la ma laam gi 30 la 10 plus 7 30 40 zuj lan 40 wakaana nekk na si hëbu diini jum baa moom diine za dara mi de borom tàkk xam nga jum boo demee dibiteri yow dibiteri bi ngay dem mm. jili boo fa demee xé mm. maa ngi koy publicité waaye dañoo mën a lakk yàpp <laughs> Euh, Babacar matt bu mag moom mooy teg matt bu mag mi uh-huh. ah mooy jum tàkk bi lakk bi wakaar nekk na shihabu diini jum baa moom diine jardara mi di borom tàkk l'islam tàmbalee jug moo tax kuy fay l'islam yaay fay waaye l'islam day gën a yokk yuriduuna an yutfi'u nuura allahi bi afwaahihim يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم seen nam seen yitte dëgg mooy fay lislaam waaye yàlla bañ na yàlla bañ na waaye seen pexe yi daan def yàlla delloo leen ak toroxtànge mbokki mi ngi noonu siirangoog mi ngi noonu soppi si jina Mouhamed yangoog waaye nag siira du jeex ndax damay tàggoo xaaj Malick léegi ngañ bàyyi nag mooy ñëw ma jàkkaarloog moom nag ci rasulullah yi insha allahu taala xaaj Malick ah oustaz Pape jërëjëfati li ma indi woon tey mooy tàggu téléspectateurs yi mm-hmm. tabarakallahu ñu tàggu ñoom ñëpp ñëpp ñu ngi leen tàggu ñi ci biir ak ñi ci biti réew ñi nga xam ne ñu ngi doon topp ci fajaru wallahi lazim waa états waaye ta ñoom bàcc si ñang ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak ñoom boo ñoom ñëpp di nuyu sa benn mbokk boo xam ne ni sa xarit di la seetaan bis bu nekk ñu koy wax Rachid Ñang ca États-Unis ak sëñ Ousmane Ñang mhm. alhaaji Malick Ñang seen rakk mu ngi fii Liberté 6 duñ la tardé dañ lay seetaan saa su ne sa xarit lañ say mbokk lañ tabaarakallaahu di nuyu sama kilifa alhaaji Mouhamadul Mansour Dieng mu ngi mhm. lay nuyu di la ziar Ibrahim jóge na umra nee na naa la yóbbante ay nuyoo mu ngi lay ziar Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Babacar <laughs> Adja ñoom Anta ak ñoom Binta ak ñoom ah, ah, yaa jaw ñoom ñëpp ñoom Jeena ba mu ngoog ñoom ñaaña ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar ñoom ñëpp di baalu xàq ñëpp pap daal li nga ko waxee a allah siire moom incha allah bu ñàkk am siire yoo xam ne di ñëw incha di la gërëm jërëjëf Haj Malik mënul ñàkk nga jéggal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faaqidu shay'i laa yu'tihi mhm. ku ñàkk dara mënoo koo joxe da ngaa baax rek ñi ma dàq li bëri nañ foofu waaye sag mbaax ak sag tabe tabaarakallah ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla sa lii ngay def yàlla na law yàlla na law yàlla nga dem ba am sa télévision bopp ah, tabaarakallah yàlla am na ko mën na télévision siira sa télévision siira li ngay def nii li ngay def nii yaa ngi jaamu yàlla bu baax uh-huh. ci jaamu yàlla yi ñu ngi yaa ngi lay ñaanal ñi nga xam ak ñi nga xamul ñi nga dégg ñi nga déggul xam naa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salaam haj malik yàlla na yàlla yokk la dëgëral ñëw itam adduna bi bég nañ ci yow sa mbaax sa yar sa xàmmee nu ngi lay ñaanal yàlla barkeel la amiin yaa ilaahi ci darajey sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma ngañ mu ñëw mosalal gaa yi siira te nga wan leen makkatal mukarram xaj ngañ ñëw jërëjëf ma sha allah